jema tank lima xalat li indi li nu fi tek dafa sori bo topé ren ba daf la yobbu 1962 ba nga xamni leopold Léopold Sédar Senghor ak nim andal fexel nañu Mamadou Dia ba japp ko ne ko raw ci kasso 1962 ba 2000 muy fanweeri ak juróom ñet réew mi ñi ñu socialiste ni ngeen ko 2000 sénégalais yi jël seeni matukaay jële fii socialiste Abdou remplacé ci lool mu ci liñ opposition lu man ñaar fukki at ak sénégalais yi lu defoon na ni bu ñëwee danañ fi soppi dara mu ñëw tubaarkàlla bu euh, doxalinu socialiste xeeñoon doxalinu Ablaye Wade dafa xeeñu xunn fukki at ak ñaar mu nekk ko fii ak ni mu fi nekkee ni mu fa nekke woon xam ngeen ko jaruma ma ci ma ci yàgg ba mu fi jógee 2012 euh, yàlla indi fi makki Sall am na ñu yaakaaroon Macky Sall waye man mi di wax ak yeen de wax deug yalla musuma am yaakar ci mom wax naa ko ci samay téré wax naa ko ci samay contribution yi may def def na fi juroom ñaar yat ñu falat ko juroom yat 2024 kan normalement la wara jéxal normalement la wara jéxal waye am na ñoo ñi seen xel dalul wax ko nak jëm na dalal xel nit ñi waye ku melni Macky Sall day kilifa go xamni gi li gën a am ci kil solo ci kilifa mooy kàddu da ko amul loolu loom solo la te loolu journaliste yeeg ñëpp dañ ci am waarawuñ ci kilifa gomul kàddu mooy Macky sàll dama koy wax fii nit ñi rek waa wax yi Macky Sall man du ma ci dóor sama doom defu ma woon nag lee ma lu tax du ci dóor sama doom kilifa gu mag muy sëñ Abdou Lahad Mbacké dafa ne booy wut nit koo àndal da jël wax yi daawam nga méngale ko ak jëf yi renam bu woroo rek bàyyi ko wuti keneen wutil keneen ngir wax day day day day tënk gor gor waxam da koy tënk boo xasee jox sa war day moomatoo sa ba wax jàlla moom kii nu yàlla fab mu teg ci réew mi nag amul kàddu amul benn respe ci kàddoom donc dana dem ba 2024 boo ko seetee muy juróom-benn fukki at ak ñaar yoo xam ne yi réew mi dañ ko yor ci yor yor yor bu xeeñ dama naan je parle de gouvernance nauséabonde yéen ñëpp xam ngeen ko li fi xew ñuy doxal doxal wu doxalin wu wu doy waar kilifa yi ñu fi teg dégg nga maam mëtewuñu ko ci man ni ma gisee euh, kilifa nu mu war a jiiteem réew Euh, sàmmuñu seen kàddu sàmmuñu alal réew mi di ko saax-saaxe nu leen neex boo gisee nag si fii li ko indi mooy dafa am lu ñu naan corruption ñu naan ger lépp foofu la jóge ger ger dafa doon góom boo xam ne bii bu yaatu bu xasaw la euh, dama naan damee compte c'est une endémie nationale nourrie et entretenue par le président de la République je le dis haut et fort góom bu xasaw bu yaatu la ger te bis bu ma Macky Sall xëyee da ciy euh, lobb ab ab ab paaka di ko gën a yaatal ba mu ñëwee ñu fal ko ak digg yu tooy xépp surtout lu gor dafa noon dinaa xeex ger bu baax a baax a baax ba ñu ko falee ba mu njëkkee dajeek waa këram fee ca Mbodiène ci université d'hivernage dafa ne leen man sama lépp sama doole ci xeex ger laa koy def li koy wane ah dekkal naa tribinal bu ñu naan kër euh, yi xam ngeen ko du ci sori ah, sos naa benn kuréel bu ñu naan OFNAC kooku xeer ger rekk a tax mu ni leen na ngeen wàccu seen bopp kër yi bii du pour nun ñii fi jiitu la pour ñoom la waaye OFNAC gii pour nun la man de leen yëgal ne man du ma làq kenn je n'épargnerai personne du ma làq kenn teg fi OFNAC la ca xew yéen ñëpp xam ngeen ko duma ma du je ne rentre pas dans les détails euh, kuréel yi nga xam ni ñoo war di saytu ni ñu doxale réew mi ñu leen di ay organe de contrôle ñoom ñëpp mu nasaxal leen nasaxal OFNAC nasaxal Cour des comptes nasaxal yépp kuréel yoo xam ne dañ doon seet ni ñuy doxale réew mi Euh, kuréel yi dañoo war at mu jot fu mel ni OFNAC par exemple fu mel ni inspection générale d'État fu mel ni cour des comptes at mu jot dañoo war a génne rapport wane li ñu liggéey loola teg na ci tànkam 2016 ba tey léegi mu mat ñetti at léegi mu jëm ñeent IG génnewul rapport am bi ñu tuddee euh, euh, rapport sur l'état de la gouvernance et de la réduction des comptes loola

te jamono yële génne rapport OFNAC xam ngeen na mu demee rapport bii ndaw sa njëkk a njëkk génne xam ngeen ko donc lànk na wax na ne moom rapport yépp da ciy teg concam loolu duma ci sori nag fukki rapport ak juróom-ñaar teg nañ ko ci loxoy procureur de la léegi dem na fukki at fukki rapport ak juróom-ñeent dara mujju ci donc kii xeexul ger daf koy suuxat Macky sàll day xuu suuxat ger moo tax lii nu fii indi di 94 milliards yi ni mu demee yéen ñépp xam ngeen ko duma ci sori mu doon scandale bu rëy rëy rëy waaye nag ba koy soo ko njëkkee wax dañ ne eh maa ngi dégg ñu naan c'est une vue de l'esprit waaye yooyu wax la rek caaxaan la au moins léegi commission parlementaire bi wan nañu na 94 milliards yi am na ñaari pàcc yee Ousmane Sonko doon wax bii 45 milliards bii nangam lu leer la leeral nañu àllkan mii bërki démb di inspecteur des impôts def na interview ci enquête leeral nañu lépp lu leeral leer la nduxum ya ca nekk yépp li ma ciy wax mooy ndok ba Ousmane Sonko Ousmane Sonko euh, ba nu ko yàlla joxe waxuma ko nag pour par gis nga bu ko waxuloon lii bu ko waxuloon tey fay nañu waa ji xaalis bu yàgg a yàgg bu ko waxul woon fay nañ ko bu yàgg yàgg yàgg 94 milliards ci loo xam ne 2 milliards 800 millions la ko jënde ci loo xam ne jaareelu ko yoon donc loolu moo nu fi indi léegi mi ngi ci loxo yoon yoon nag mënuma ne man de wax dëgg yàlla bu taxul ñu doy ma sañ naa ko wax taxul ñu doy ma parce que daf fi am yoo xam ne yii damay wax ne.

peuple bi xeet bi am ci responsabilité njiit yi am ci responsable sunu sëriñ si ci responsabilité parce que euh, euh, l'islam dafa am ay ay kii yoo xam ne da xaar ci njiit ay melokaan yu muy xaar ci njiit yoo xam ne boo ko rek njiita ngoo yi l'islam di ci melokaan yépp dama koy wax man xam-xam taxul mais lu leer la lu ñëpp d'accord li lislaam di séenu ci ci njiit dara nekku ci ci Macky sal lislaam bëgg na njiit lu sàmm kàddoom lislaam bëgg na euh, njiit lu tëdd njaaxaanaay lislaam bëgg na njiit lu sàmm alal dañ ko dénk loolu lépp dara nekku ci ci Macky sal loola dina ma jaaxal léeg-léeg seen sëriñ si niñ koy tam-tamalee loolu jaaxal la ñuy xaar la lislaam di xaar ci njiit dara nekku ci ci Macky Sall loolu moom maa wax fii donc bu nu tollee fii war na noo gërëm Ousmane euh, euh, Ousmane Sonko ngir lii tey bu ko yëkkatiwuloon yàlla xam na ni 94 milliards yi waaye waaja fayu na ko bu yàgg-yàgg donc war na nañu ci wax comme mi ngi ci yoon aussi yoon wi ñu baree bari doyu leen war nañoo gën a takku gi yéen ak ñeneen ak ñeneen war a gën a takku taxaw ngir fexe ba mbir mi ñu jaarale ko ci yoon buñ ko ci jaarale wutit lu gën a xeex rek te xam ne xeex bi du jeex mukk rek loolu daal la ci bëgg a wax pour ne pour ne pas monopoliser la